Nous voulons nos terrains, nous voulons nos terrains, nous voulons nos terrains, nous voulons nos terrains, coopérative bi nga xamante ne en tout cas mettre nañ ko sur pied depuis 2012 euh, à nos jours voilà mu doon coopérative boo xam ne waa poste ñoo dajale woon. Euh, seen i doole ci euh, mbir mi nga xamante ne en tout cas remarque bu ñu defoon la au niveau de la poste que léeg mu am ñoo xam ne liggéey nañu ba retraité te duñu am ci màqaan boo xam ne fa la ñuy dëkk ñu ne ah loolu kat nañ ko waxtaanee ñu waxtaanee ko suñu biir ba d'accord parce que du ñàkk aussi coopérative yu bari dañuy am ay jafe-jafe nit ñi dañuy dugg ci coopérative mais pour jot sa terrain lu jafe lay ñu ne ah nañu jéem a constitué wu xool nan nañuy doxalee ci loolu yàlla suturaal ñu aussi ñuy dox ci loolu ah difficulté yi ñu ci am yëpp yàlla suturaal bi ba ñu ñëw ba gis site bi site bi nag ñu daj ci loo xam ne en tout cas xëy na mburu du ko daj ci taal parce que ñu ko commencer site bi jël ko euh, gis ko waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy borom site bi ñu def lépp li nga xamante ne moom nañ ci war a def état rejeté na suñu dossier ci ñetti yoon maanaam pour bëgg rek ñu conformer ak li nga xamante ne moom la loi bi tëddal ci wàllu dëkkuwaay yàlla dogal aussi loolu yëpp ñu matale ko ñu matale mbir moomu yëpp ba nga ñu am suñu këyit yu leer tey gi fa ñu toll woon ci ci wàllu euh, démarche ak séddale mooy jàppoon nañ ne coopérative bi jeex na parce que lépp li nga xamante ne war nañ nañ ko ci këyit ci état ci lépp matal nañ ko ba ñu demoon ci notaire bi sax di séddale mais comme nu ko ñi ngi waxee tout à à notre grande surprise ñu gis loo xam ne dafa ñëw dal suñu kaw ñun ñëpp muy VDN bi nga xamante ne daf fiy jaar te ñu ne fii am ñaari rond yoo xam ne day dal suñu kaw ñun nag loolu mënuñu ko bañ ci li nga xamante ne moom la état di doxal mais dafa am loo xam ne daf ñu ci jaaxal lool parce que nee naa leen depuis deux mille dix ou deux mille deux mille treize ñu ngi ci site bi xam nañu lu xew ci site bi yëpp trace bi am na fu mu doon jaar déplacé nañ ko lu mat ñetti yoon wala ñeenti yoon ba ñu ñëw fii dal sunu sunu kaw nii la preuve mooy fii ñu taxaw nii rek trace bi dafa jëloon ba ci ginnaaw nële mais ci dernière information yi ñu am maanaam bàyyi nañu euh, euh, jàkk ji nii ci jàkk ji lañ ko commencé demaat ba fële donc ñun li nga xamante ne sax épargne ñu ko woon jëlaat nañ ko sunu biir te ñun loolu la ñu mën a comprendre ñun mën nañu comprendre ay projet mais projet boo xam ne day déplacé wu du jour au lendemain aussi ñun à notre niveau ça pose problème et que aussi jafe-jafe yi nga xamante ne postiers yi am nañ ko nga la waay postiers yi bu ñu góorgóorloo defaru di cotiser as tuut la ñu yor jafe-jafe yi ñu am suñuy salaire di tardé sunu kër yi di yëngu engagement ñu amoon au niveau des banques mënatuñu ko amatuñu ko bu ñu ñëwee lii war a dal suñu kaw day doon loo xam ne lu diis lay doon te xam naa ne en tout cas du lu yomba loo xam ne postiers war nañ ko mën a accepter wala ñu digérer ko donc tey gii li ñuy wax mooy li fi nekk rek ñun ñoo dem envers les autorités pour au moins sax ñu mën a am ay information alors que dëkk am na nu muy tëddee boo dugalee ñu ne la baaxul am na loo xam ne moom nañuy def bu ñu nammee aussi dañuy teel a ñëw wax ak yow mais lépp luñ ci am ci information maanaam ñoo jël suñu dàll dox ko site bi ñu nekk nii fi ñu taxaw nii nii rek ça fait douze hectares ñi nga wax na ko léegi nee na boo xoolee lu ñu impacté parce que maa ngi koy expliqué sànq douze hectares yi tey gi munoon na abriter presque cinq cent et quelque wala quatre cent soixante dix sept parcelles mais tey gi ci li nga xamante ne moom nañu wax ñuy bàyyi parce que defaroon nañu ba pare li ñu wax ñuy bàyyi maanaam PDU bi nga xamante ne dañ ko bàyyi boo gisee fële ci ginnaaw ba ci catu terrain ba bàyyi nañ fa lu mat trente mètres sur la largeur et sur toute ñu jël toute la longueur bàyyi benn largeur u trente mètres donc loolu li muy impacté ci ay suuf dafa bari donc loolu yëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon les coopérants ñoo ko mujjee supporté lu mat cent douze parcelles ñu perte ko ci site bi euh, ñu wax ñu ñu yaatal tali yi parce que dafa am projet boo xam ne moo fi nekk dañu bëgg a def euh, euh, Lac Rose bi zone bi deuxième pole urbain donc ñu ne ñu nañu conformé wu donc loolu yëpp ñun jàpp nañ ne buñ ko defee en tout cas ñu ngi ci règle ñu ngi ci ci yoon te tey gi le postier ne peut pas comprendre man toujours loolu laay wax et que j'attire l'attention des des autorités par rapport à la situation au niveau de la poste muy situation bu difficile boo xam ne sénégalais yëpp xam na lu postier di dund alors que mérité wuñu loolu. ci kilifa yu ñu ci war a waxtaanal parce que lii bu mu dalee sunu kaw aussi euh, dem nañu seeti suñu directeur général waxtaan nañu moom ci projet bi fu mu tollu ak ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom nañu am ci li ñu xam aussi ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo séq projet boobu muy le préfet dem nañ ci moom waxtaan ak moom dem nañu Ageroute waxtaan ak waa Ageroute dem nañu au niveau de la gouvernance demandé woon audience mais amuñu audience mais en tout cas échangé nañu ay correspondance ba ñu wax ñu ñoom ci mbir mi nga xamante ne foofu la ñu toll ci dossier bi mooy li ñu ngi wax rek dafa am décret boo xam ne ñu koy wax décret de cessibilité boo xam ne président de la république moom moo ko war a signer pour ñu mën a dem ci toog waxtaan boobu nga xam ne dañ koy waxtaanee mais ñun dañu lancer un appel solonel un appel solennel au président de la République euh, son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay na bàyyi xel ci post bi na bàyyi xel ci postier yi euh, autorités yi na ñu def yërmande ci postier yi postier yi sonn nañu bépp décision boo xam ne war nañ ko jël ci lii nga xam ne mooy site bi nañ ci ànd ak postier yi waxtaan seex postier yi ba ñu mën a d'accord ci kaddu pour ñu doog a jëfe yu mel noonu donc vraiment appel bu ñuy lancé la appel du cœur la ñuy lancé ñii fi nekk nii ñëpp tey jii xam nga mbir mi dafa yaatu parce que tey waa Dakar ñoo fi nekk mais li gën na yaatu Dakar boo demee dans toutes les régions am na ay postiers yoo xam ne dañu bokk ci ci ci projet bi projet bu day nii en tout cas du projet bu ndaw parce que les coopératives boo koy dégg ay cent vingt personnes lay doon ay cent cinquante personnes mais coopérative bu ëmb cinq cent cinquante personnes yàlla suturaal la nga ciy dox amoo ci benn jafe ci këyit ba fi nga toll nii ba ñi ñii lépp li nga xamante ne defoon nañ ko comme ay ay ay au niveau de la banque ñoo commencé di ko tabax ñu xëy arrêté leen loolu jafe-jafe lay doon ci ñoom parce que kenn ñëpp xam nañ ne jafe-jafe yu ñii ñi di dund waxuma la poste sax mais ku leb xaalis banque am beneen soxla bu dul soxla bu tabax bu fekkonte ni ci tabax nga ko jëlee da nga ko dugal ci soxla boobu ndax alal fejul gàcc de fejul dee gàcce lay fay donc bu fekkente ne ñit ñi dañu ut ay prêt pour commencer di tabax ñu ñëw arrêter le projet sans pour autant ñu am ci benn explication wala benn clairvoyance fu ñu jëm ëllëg wala ñu am benn timing bu clair ci li nga xamante ne moom nañu def day indi ay jafe-jafe ak ay jiixi jaaxa ci bopp postier yi en tout cas postier yi jaaxle nañu postier yi jaaxle nañu postier yi jaaxle nañu ñu ngi tàllal loxo nag le président de la république ak équipe bu bees bi nga xam ne moom nañu fal ñu am yaakaar lool ci ñoom yaakaar bu bëri la ñu wekk ci ñoom pour que lii nga xam ne yaakaaru ay euh, père de famille ak mère de famille la mu bañ a doon yaakaar bu tas ndax mbir yi jafe na lool suuf jafe na lool mais boo góorgóorloo ba nekk ci norme amul kenn ku ñemee jóge fële ne la benn lopin de terre moo ko moom wala benn centimètre carré moo ko moom ci euh, site bi ñu taxaw nii kon boog la ñu waroon def ak la ñu warloo woon ak li état di laajte ci dëkkuwaay loolu yëpp respecté nañ ko donc ñun daal vraiment ñu ngi tàllal loxo encore nos nos nos nouvelles euh, autorités voilà pour ñu bàyyi xel bu baax ci poste bi te accompagner ñu. accompagner la poste parce que lool la ñuy xaar ci ñoom. Euh, postiers yi fi nekk di dajale seen as di dajale dajale ba am si bii ba am yaakaar pour dëkk fi mu am ñoo xam ne entre temps dem nañu retraite yaakaaroon si li ngeen fay seen retraite day ñëw fii pour tabax fi pour dëkk ndax dañ nekk si ñoom si location la ñu nekk. tey ñoo ñooñu jël seen terrain tey ñu ngi nii tey pour fay si location sax problème la ñuy wax nag depuis douze ans ñu ngi toog tey di toog boo war a dem ñëw lu ñu def pour tabax dëkk ñun lañ doon fi dëkk loolu dafa dafa te def naa ne autorité yu bees yi fi nekk dañuy ñëw aussi mooy leen gën a indi mooy pour saytu méttitu population bi lii bokk na ci méttitu population bi mooy dajale sala nga am doon liggéey nga xam ne salaire am dem ba ay at nga am lu mel nii ba war fay am ak sa njaboot dëkk fi ñenn ñi commencé di tabax ñenn ñi dem ba wut ay près pour mën a dem taxaw ñii seen li leen fay seen lañ mu ñëw tabax état taxaw ne ne doon leen fi tabax loolu dafa doy war te amul lara loo xam ne leer na fi man li may wax sama kàddu mooy damay lancer un appel à ces nouvelles autorités que ne euh, postier yi sonn nañu d' abord sonn nañu bu si lii tegootee encore muy doon beneen coono encore def naa ne nit boo ko nekkee si ay difficulté li la war mooy nga dimbale ko te bëri na postier yi ak coopérative bi ñu am yaakaar lool si niveau autorités yi dañu yaakaar moo tax ñëw taxaw fi di lancer un appel di wax ak ñoom pour ñëw dimbale ñu si terrain bi dimbale ñu si suñu coopérative bi parce que ñun si boobu dañu bëgg récupérer ñu ay terrain tabax suñu ay terrain dëkk fi ndax nit amul di dul dignité mooy mu liggéey am dëkkuwaay def naan autorité bokk na seen politique l'habitat social ñun ñi li ñu def nii lépp ñun ñoo ko def ak suñu ñax boo leen xoolee ni terrain ni mu yaatoon ni ay at lañ ko am ñii wax nag le président Bassirou Diomaye fay et le premier ministre Ousmane Camara euh, Ousmane Sonko du moins Ousmane Sonko nañ ñu dimbale jàppale ñu ba nga xam ne postes yi delluwaat joraat seen ay seen ay terrain mën fay def seen ay réalisation ndax dëkkuwaay bi dafa doy dafa metti si Dakar gi ñu nekk nii location métti na ñu si bëri ay pères de famille ñu ngi fi nekk ni tey nekk si si location am ay jafe-jafe pour nag lu ñu sax lu ñuy régler seen location kon on lance on appel encore duñ si taay di ko di ko wax autorités yi nañ ñu dimbali li laa war a suuri dimbali ñu ba ñu jotaat suñu ay terrain ba ku nekk am sa sañ-sañ war fu mun def li nga xam ne moom mu def projet ndax nit amul lu dul dëkkuwaay.